juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel mbambu topp na leen candidat yi ñu kale ci wàllu parrainage bi te ñu fare ci ku jëg politique gi ñoo leen yàq musiba ak mbalengaan ñoom waa conseil constitutionnel ànduñu benn yoon ci dogal yi conseil constitutionnel jël ak ni mu ko doxalee ak ni ñu leen kale ci wàllu parrainage yi beneenu xibaar bu nekk ci l'observateur yéenekaay bi nañu moo di opposition bi ne woon tey jii danañu amal ab doxum ñaxtu doxum ñaxtu ba tegaat nañu ko ci suuf bàyyi nañu ko ba jëmmi jamono nee nañu dañuy nas yeneen i pexe yu gën a ñaw ngir taral xeex bi ñu bëgg a xeex ak gi fi nekk wàllu parrainage beek coow li ci am l'observateur mi ngi ñuy xamal ne société civile bi wàll si nañu ci géew bi le quotidien nañu juróom-ñaari observateur yi ñu tànne woon ci société civile gi yu ñuy defee vérification parrainage yi journal bii di le quotidien bind moom it def na procès verbalam réew mi quotidien nañu société civile gi ci réew mi fësal nañu juróomi rëq-rëq yooyu nemmeeku nañu ko ci vérification liste parrainage yi nee na anam yi ñu ko defee leerul wéerul la tribune nañu société civile gi invalidé nañu parrainage yi waa forum civil nee nañu amuñu sikki sàkk ci ne mbiri leerul Bougane Gueye Dany njiital mouvement gëm sa bopp di ñu wax ci xët mu njëkkulaatir bi ne juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel mënuñoo dañu faa war a jóge dañoo war a démissionné dem seen yoon ñu tànn ñeneen jox leen ñu doxal nañu dox dem ci source a mi ñu xamal ne mu njaay siise ak compagnie ay bokkat lañu desee nañoo mat li ñu doon ndax dem nañu ba nemmeekul seen bopp juróomi rëq-rëq yu am ci anam yi waa conseil constitutionnel doon wàññee parrainage yi waaye waxuñu ci dara lu dul def ay recommandation l'observateur nañu kii di Idrissa Seck Alaaji di Kenya yi waa conseil constitutionnel ne woon matlewu leen dem leen mottali ji seeni bagage mottali nañu ko ba wàlli dal nañ leen seen parrainage ñoom ñett ñoo ñee kenn ca di sa Seck Les ko xëy na ay xibaaru jëm ci moom ndaamal Kajoor njiital parti réew mi ma ngay waajal bu baax a baax wootey présidentielle yi war a am ci réew mi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 loolu sax tax na tuxu na dem dëkki fan këram ga mu dëkkoon ca Point E mu soppi ko def ko quartier général bés bu nekk ma nga fay jaabante di daje ak militangam ak i aliyem Les Échos nee na dafay xaar ba liste provisoire candidat yi génn muy soog wax nañu wax ci direct info mi xëy di ñu wax waxi waa Wàddeen mu di Abdoulaye Wade ak waa këram yéenekaay bi nee nañu góor gi di Abdoulaye Wade mi ñu naan dafa ñëw Sénégal àllarba ji wax joojee wérul Wade dina ñëw Sénégal waaye du doon ci àllarba ji soxnaam di madame Viviane Wade mooy njëkk a ñëw ci réew mi coytu terrain bi xool mbir yeeg ni mu tëddee bu ñu ci nuppee Abdoulaye Wade soog a ñëw Karim wax na ne bu doon ñëw ci réew mi ñuy dagg boppam it du tee dana ñëw nañu ñëwaat ci wàllu tàggat yaram guddi yi ñu toll yéenekaay bi nee nañu li dindub Afrique bi bëgg xam ci wàllu football ndakaaru lay leere te tey ji ci lay leer benn moo di man réew ci réewi Afrique yi mooy organiser coupe d'Afrique 2019 tey la koy xam ñaareel ba moo di ban footballkat moo gën a taq ci Afrique tey jii ci la ko kaaf di wax ñetti footballkat daal ñoo koy xëccoo mu di Mohamed Salah bu Égypte Sadio Mané bu Sénégal ak Pierre-Emerick Aubameyang bu Gabon record yéenekaay di laaj a Neuer Sadio deuxième Obama troisième